voilà équipe bu Kaolack baa ngi noonu ak équipe bu Tamba bi équipe bu Kaolack bi euh, mooy xale bi nga xam ne moo ñu woon kanam équipe bu Tamba bi ngémboo ngémbalu xaw a bulali équipe bu Kaolack bi dugg na ko daan na ko def na trois appui Kaolack daan na 2-0 pour Kaolack 2-0 pour Kaolack. voilà beneen combat baa ngi noonu. muy le dernier combat troisième Kaolack toujours Tamba Kaolack moom déjà génn na. sama rak sama xarit. mais Kaolack moo am. waaye drapeau bu moo naan surtout rouge bi attention Kaolack daan na 3 à 0 kon Kaolack moo finalu bu Dakar Kaolack mooy finalu contre équipe bu Dakar.